dal leen ak jàmm ñu xëy taxañ yéene kaay xëyandoo tàmbale ko le mandat yéene kaay dikkaat na ci yeesalaat trafic a dekkalaat saxaar bi nga xamante na ko indi moo di kenn xamagul ak naka lañ leen di jugé yéene kaay bi enquête di ci Khalifa Sall ak Macky Sall ñaari Sall leen yi jamono ji ñoo ngay xeex nag ci terrain bi ndax jamono ji nag ku nekk yaa ngi wër sam yaa ngi wër say militant di leen jéem a baab itam la nga xamante moom nga bëgg ci réew mi nag niki mercredi Sall nag dana darmaale ak ministère accélération jëm ci modernisation des villes ci quotidien ci quartier ci gujje gi assemblée nationale la ñu xamle rek moo président Amadou Mame Diop bloqué assemblée nationale moom mi nga moo jiite assemblée nationale assemblée nationale la def Amadou Mame Diop luñ ko yàqu rek dañ koo fàtte ndax jàpp nañ ne assemblée nationale na bindoo ak na mu du kenn koo ko waral naka lu ki nga xamante si moo di président Amadou Mame Diop troisième candidature yéene kaay bi nee na combat la boo a si war a soob seen loxo combat boo xamante ku nekk rek war see indi sa wàll nag maanaam dañu kumpa ci li nga xamante si moo jëm ci doublon yi ndax yéenekaay bi ne am na si njot yoo xamante ni maanaam ci l'observateur moo ndax parti maître Abdoulaye boobee nag mu ngi janoo absence su candidat a maanaam ci suuf si nag daanaka ñu si bëri nag ñoo jël seen saaw bopp la mort des instances dirigeantes maanaam instance yi nga xamante ni kon boobu les partenaires jamono ji lépp dee na nag ils ont tué le parti noonu la ko yéene kaay bi xëy fasale jël nataalu Karim Wade ne ko daj nag loxo ba dal gémmiñ ba mel ne jaaxle jàpp ne parti PDS boobee nag gars yi rey ba mu deewee les vérités du porte parole des Layènes à Sonko ni ki démb fa Sonko def moom bi porte parole bi la ca xam ne moo di mbir mi nag du nekk ci mbedd mi lañ koy xeexee du nekk nag fitna lañ koy jëlee waaye nag dafa doon loo xamante ni boo koy xayma rek urne yi moo mun moo doon président ak ku ko du doon Walf Quotidien di ko ne nag message bu saa si tamit jàllul ndax boobu ak léegi ñu waaye ba fa ni ñoom politiciens yi dégguñ li kilifa diine di wax ni ki la ko wax Ousmane Sonko nee nag mbir mi jarul xeex jarul xoloo ndax bu ñu demee war a gañe dina gañe waaye yor yor yéene kaay giseewul noonu ne moom ni ki démb la xam le naka Ousmane Sonko ci appel à la PD line nee na naka échec de campagne ci diabolisation maanaam campagne bi nga xamante ne si dañ koo teg rek ngir yàq Ousmane Sonko ci këru diine yi loolee moom nee na du jàll ndax jàpp ne ne waa APR ñooy joxe ay information yu baaxul ngir jéem a tilimal dëri Sonko yi rek la tax a jóg moo fexe boo kilifa diine yi dootuñ fi amu baat ki amagul ne nii naka moo ki nga xamante ni moo di nga xamante naka bañ ko defeeree Assane Gueye ñu gën koo xam naka ci Azoura Fall boo moytul nag mën na amaat ñaareelu naka dépôt de mandat juróom benn weer ci ñett yoo xamante moom lañu dóor ci juróom ñaari militant yi nga xamante ni moom la ñu jugé leen nag bés bi naka doon na beneen mbir moo xamante daanaka nag moo nar ak pale ñu bëri 24 février 2019 ñeenti at a bi nga xamante ni falaat nañ Macky ak 58 kaay bi naka dikkaat na ci ci at boo xamante ni daanaka moo deseeg Macky Sall ci kaw ngooku réew mi wax ci tàggat yaram ak Aliou Cissé mi nga xamante ni daanaka naka génnaat na dal di yëkkati ay kàddoom la mu ca xamle rek moo di la mu bëggalaat Sénégal moo di indiwaat fi beneen kan loolu di la ñu bëgg ñëw ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg